salaam salaam ci seen podcast mën na nekk ak jàmm dong la tey jii nii nag ñi ngi en pleine Casamance ci région de Sédhiou Sédhiou benn temps bu ma neex boo xamante ne c'est la deuxième fois mu fii ñëw maa ngi fàttaliku 2019 laa fi géejoon avant Covid bi ci coronavirus sonal nañu ma def fi concert bu neex fële ci foor Fort la laprade may nuyu artistes ma bokkaloon seen bi sama bro Boy Sédhiou xam ñoom El Griot Mas ah, ku lim ay ñoom DJ Baflay ñu accueillir ma fii vraiment ma sentir sama bopp sama kër donc xam naa ne comme ni ma ko waxee sànq su woon Covid bi dinaa fi ñëwaat mais yàlla dafa tudd ne 2022 laa waroon ñëwaat Sédhiou ci tournée mën na nekk maa ngi nii nag ak sama gars yëpp ñu ngi nii ci hôtel euh, Banta Bato à Djenné plus précisément dans un endroit paradisiaque. foo xam ne maa ngi nii di gis vie boo xamante ne sincèrement musuma ko gis sama life di am quiétude boo xamante ne musuma ko gis fenn sincèrement et je suis vraiment sincère donc un endroit vraiment a visiter instant yi dañ fi ñëw pour liggéey mais xam naa ne fii dinaa fi ñëwaat pour noppaliku si mais comme liggéey lañu wax ñu ñëw nag tey seet si benn ngan di kat benn jigéen ju mën góor koo xamante ne mi ngi fii di def ay jéego yu rëy toog fii nii biir dëkkam di ko lijjanti ñu koy woowee Awa Sané Awa na nga def. ça yaa ngi ci jàmm. maa ngi Awa xam naa ne ñun li ñu fi mooy mën na nekk dañu gëm ne que Sénégal am na potentiel te boo nekkee jeune liggéey euh, di nga ci génn te xam naa ne yow it gëm nga loolu ndaxte yaa ngi nii nekkoo Paris nekkoo Dakar nekkoo beneen ville yaa ngi fii ville bi nga xam ne moom moo originaire di fi liggéey. lan moo la gëm loo woon ne fii mën nga fi entreprendre génn ci. waaw maa ngi lay nuyu di la sant ci invitation bi di la remercier wit ni nga ñëwee di interviewer jeune dëkk bi bon man maa ngi tudd Awa Sané nekkoon apprenante CFP Sédhiou mais avant boobu dama def cursus normal dem naa ba université suivre benn formation en comptabilité gestion maintenant bi ma demee ba rendre compte que ni affaire bi dafa compliqué c'est tout à fait un problème de trouver un boulot bi ma ñëwee année boobu ñu wax ma ni centre bi dafa am benn filière bi ni ne agri élevage ma ne bon pourquoi pas bon musul nekk nag sama projet waaw musul nekk sama projet maintenant bi ma defee formation sama première année da ne yow sa niveau bi ni nga ñëw de dugg si centre bi nga xamante ne c'est juste ñi nga xamante ne ils ont raté le cursus scolaire ma gëm ni que ni dëkk bi Sédhiou dafa am ay potentiel yi nga xamante ne tey boo naree investir ci temps ak fulla ak fayda waaw léegi bu ma demee ma inscrire ci filière agri élevage def sama première année deuxième année bi ma commencé di def samay pratique ci côté élevage. on était un groupe de cinq j'étais la seule fille. et jusqu'à présent sa groupe mi ngi existé man rek maa nekk en activité ma bi ma gisee ni sama première production bi ma def ko ma génna ci ma décidé continuer ma ne pourquoi pas ma bind sama benn business plan yi ci côté élevage bi ma soumettre ko programme yi bëri fii jaar loolu laa def ko maa ngi dégg ci booy wax koo xam ne dafa structuré parce que euh, man xam naa ñu bëri ñuy def euh, ginaar est-ce que wax nañ ko sax ni que préciser wu ma nga baal ma ni que ci élevage de poulet de chair ah ngay yëngatu bon après ci ñëwaat pour ñi ko xamul man gis naa ñu ñuy dugg ci ginaar parce que dañuy gis benn copain wala benn cousin wala benn voisin di ko def di ci am xaalis rek nga ne ah man de damay damay dugg ci affaire bi mais yow dafa mel ni nit ku structuré nga balaa nga ciy dugg da nga dem gëstu ci xam-xam Mm-hmm. dama dem jëli ay information si kuy yëngatu ci ganaar qu'est-ce qui t'attend bi ma demee ma suivre formation ba pare mu bind sama business plan bi ci école bi laa doon def par la suite deuxième année bi ma def le tout ba ma waxtaan ci ak sama pap ma construire benn benn genre poulailler bu ndaw ni ci kër gi ma si def samay pratique parce que man tamit sama avantage la te sama morom bi ci nekk ku amul opportunité pratiquer ci école bi soo ñëwee si kër gi ñu partager li ma jot a xam ci ginnaaw ma partager ko jox bi laa suivre ba ma génn trois ans en aviculture. macha allah mhm. léegi yow ñan ñooy say client ci ci ginaar yi. bon restauratrice yi comme genre Tida mën naa jaay aussi les ménage la ma ñii ñëw di par benn. xam nga Sédhiou léegi am na ay gan yu bëri. boo jëlee exemple camp yi parfois ci semaine bi mën nañ consommer ginaar deux fois ñoom ñëpp bokk nañ ci samay clients. camp militaire yi. camp gendarmerie bi. camp gendarmerie waaw. Hmm. comment tu te fais noo defee sa communication ba nit ñi xam la. bon balaa may dugal nii. balaa maa commencé damay def ay affiche wala ma jaar si restauratrice yi informé leen ni damaa bëgg a dugal ganaar mais tant kii dana mat juste pour ne pas nga ñàkk clientèle bi quoi. ban conseil nga am booy jox suñu rakk yi nga xamante ne ñu ngi ñuy déglu ba pare bëgg lancer wu dans l' entrepreneuriat. bon li ma leen di conseiller mooy il ku bëgg a lancer wu nga jëkki saay rek dugg ci sans pour autant nga am expérience bi wala compétence yi. mën nga dem formé wu soo paree nga bind sa plan d'affaires même bu ñu la financé wul war ngaa mën a am idée di man war naa mën a épargner loolu laa leen di conseiller c'est juste la confiance en soi te nga dévoué engagé nga gëm li ngay def. conseil yi leer na am na valeur maa ngi lay bu baax xam naa ne mënoon nañ waxtaan lu gën a gudd mais wax nañ l'essentiel di la wax euh, félicitations encore bravo et di la wax bonne continuation ci li ngay def léegi-léegi sama gars yi jàmm dong la naar een jumbal pour lek ah Her zo'n rouge team, Sama talen je weekend, maar doe maar toch chillen chillen Doch chillen, maar jij gaat sama clip Gale je gaat neng, oh mijn limit Meneer wordt sama muziek, tegen kind naar sama muziek Aduna nekkete jaar jaar mooie lip Aduna mingi na waaye nag bijval boel tiit Nag bijval boel tiit, ma nigga yaakaar du jeex képp kuy jeune ci région de Sédhiou te bëgg tàggatu am na formation yoo mun def te du la dikkee dara mbaa mu dikkee la lu néew ngeen tàggatu ci santé et hygiène agri élevage couture développement local restauration ak yeneen yu bëri yoo xam ne soo leen demee ci suñu page Instagram wala Facebook di ngeen fa am yi ngeen ciy soxla yépp jéngu jéngu biir Sédhiou mun nañu ne secteur yi gën a dox ci wàllu liggéey ñooy agro industrie bâtiments et travaux publics, énergie renouvelable, foresterie, tourisme te lim bi yamul fii am na yeneen domaines yu bëri yoo leen mën gëstu soo leen demee Pôle emploi Pôle mi ngi nekk Marikounda jàkkarloog centre de formation de Marikounda Pôle emploi wu Bounkiling mi ngi nekk ci quartier Sorikounda Pôle emploi wu Goudomp mi ngi nekk ci wetu boulangerie Serigne Fallou bi nekk ci kaw tali bi nek Om maar niet samen bier aan mijn nek Mijn nek, mijn nek Hassel betekent samen bier aan in de nek In de nek, in de nek Amfiteranga sutura ajam mijn nek Mijn nek, mijn nek Amfikom kom alal akdam in de nek am fi teranga sutura ak jaamu mën na nekk am fi koom-koom alal ak ndam dina nekk ba léegi ñu ngi nii Sédhiou maa ngi nii jàkkaarloog fleuve Casamance bi di am verdure boo xamante ne amul fenn mënuñu ñëw nag découvrir Sédhiou te découvrir ñu ki nga xamante ne moom mooy championne du réseau pour réussir au Sénégal ñu koy woowee maam jaata maam na nga def. maa ngi fi. yaa ngi ci jàmm. waaw maa bëgg nga ñëwaat tuuti ci sa parcours naka nga def ba ñu coopté la nga nekk championne réseau bi pour réussir Sénégal. en même temps di suivre sama papa parce que sama papa apiculteur la après nekk euh, VASCAT service civique national après ma def formation en ma def compétition semaine nationale de la jeunesse ma nekk deuxième ba tey may gis sama bopp sur le réseau des champions pour réseau au Sénégal. ngi yëngu ci wàllum um, entrepreneuriat ci apiculture. yow en tant que jigéen nekk fii Sénégal lan nga xalaat ne que jeune soxla. pour mën a entreprendre pour mën a autonome fii nii Sénégal. en tout cas fii Sénégal lu nekk Sénégal moo nekk bitim réew lu nga bañ Sénégal boobu ngay fekk bitim réew. wallaay man sama gis-gis nga des fii nii di góorgóorlu di am sa jàmm Sénégal dara dàqu ko surtout Casamance waaw loolu laa mën a ñaan sama morom jigéen ñi. la d' naa ak yow parce que ñun ñi ngi fi depuis une semaine te loolu laa fi gis gis naa ne Casamance sol est fertile. am na espace bëri na ay richesse naturelle euh, donc potentiel bëri na fi mais Sénégal dafa nekk dëkk boo xamante ne souvent jeunes yi du ñu xam ci ban richesse la ñu toog tey jii ñi nga xamante ne ñooñu ñooy suñu rakk di ñu déglu te soxla accompagnement soxla soutien bu ñu leen bëggee contacter nan la ñuy def yéen waa réseau bi. sama numéro mooy 994 00 78 réseau des champions pour réussir au Sénégal Facebook. ok merci beaucoup Mame Diatta yéen ngi doon am seen podcast mën na nekk en direct de Sédhiou ma dox leen rendez-vous fii rek quelques fan incha allah mën na nekk. mën na nekk incha allah bu soobee suñu borom. man nag maa koy tëj ak soose ne leen asa keenoo le jaamu la.